jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbegte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ba tey ñu ngi gàmbi waaye nu mënuñoo dugg gàmbi ba génn te seetsiwuñu kenn koo xamante ne yàlla suñu borom da ko baaxal muy sëriñ sa Ndiaye sëtal ak daawar bi nga xamante ne bi ma demee Sénégal dem naa ba Thiès seeti ko dëkkam. Euh, gis naa liggéey bu rafet bi nga xamante ne mu ngi koy liggéey waaye nag tey su ma ñëwee seet si ko bari na loo xamante ne xale bi da ko def muy jamaïcain doon xale boo xamante ni saa su ne ma wax ko mooy promoteur bi ngar bu bi ngar def ñaari ñaari réew yi diggante Gambie ak fi nga xamante ni mooy Sénégal euh, mu doon combat boo xamante ni mu ngi dox ci diggante amical ak bébé xarañ mu tuddee ko kilifa gi muy sëriñ sa Ndiaye ginnaaw loolu dama lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi su ko defee nga wax ma sa relation ak jamaïcain euh, ak xale bi ndoo gis ci moom. auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw gi ñu sante yàlla. julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur di ñaan si réewum Gambie jàmm di ñaan si réewum Sénégal jàmm euh, di nuyu sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom maa xarimal la di leen wax ni di leen dalal jàmm. ah di leen wax ni bi ma ñëwee Gambie ba tay de mook ña mook lama ñoo ma fi dalal chaque jour maa ngi koy gis suma ma tournée maa ngi koy gis émission yi bëri yu ma fi am yi nga xam ne en direct laa ko def dem rajo def ko moom moo ko lijjanti. ak yeneen ak yeneen ay kilifa yu fi ñëw tamit moo ma booleek ñoom. te bi ma booleek ñooñ ba tey tamit gàcce amu si réccu amu si. Mm-hmm. waaw mu doon tamit comme ambition mm-hmm. waaw. ndax ñaar nit nit ñu amandoo ambition ñoo mën a ànd daal liggéey. waaw di ko encouragé di ko wax nag euh, li ma tuddee rëy na trop. ndax foog ma woon ni dinaa mos ñoo ñëw Gambie ba ñu tuddee ma fi làmb. kon nag dañuy sant yàlla alhamdulilah. Mhm. démb signature bi euh, stade bu Bakaaw foo sànni mbàtt mu tàkk te gisuma la fa. idi mu mel ni mbooloo ma fa nekkoon vraiment Jamaïcain lu mu tëgg rek. mbooloo mi da ciy bari mais signature contrat bu am entrée mbooloo mi bari loolu fees dell dem lañ koy doo gis sa loxo da cee ne. waaw dañ koy sante yàlla xam nga ma ak moom wax dëgg yàlla ak yonent bi. Hmm. mosuma yëkkati sa sekkit jox ko mu sangu. Hmm. mosuma yëkkati sekkit jox ko mu takk. Hmm. waaye yàlla xol lay fay. ndax sa xol su rafetee rek. lépp loo dugal sa loxo rek day dem. te yàlla dafa ni jëflanteel leen nag borom xol yi rafet yi. pour yàlla di gën a yokk mbir yi. te moom borom baax la ba mu ñëwee ba tey daf ma naan defal nii duggeel nii defal lii defal lii defal lii. ah ku fi ñëw na la def lii léeg lii laag laa bul dugalanteeg ñi xamal ci ñi ngay fi nga yem ak nit ñi xamal fii bul ibbil ñëpp say bunt te mu loolu ku la koy wax rek mooy nit dëgg moo la mën a waxal lool te tey yéen su amuloon benn cër bu nekk si yéen doo ko du ngeen déplacé wu te yow fàtte naa sax yow yaa ma ko présenté. waaw yow yaa def ba ma xamanteeg moom. mu rafet comprendre nga. kon tey day gën a rafet rek alhamdulilah. mu doon loo xamante ni fi mu toll nii euh, combat bi doon na combat bu am solo euh, c'est pas la première fois ñu tuddee Idrissa Ndiaye drapeau mais Idrissa Ndiaye bii ñëw le 28 stade ban idi lay doon. waaw Idrissa Ndiaye comme bi mu ñëwee rek solo ba rafet sañ see ñëw bis bi jëmmal bis bi màggal bis bi ci kàttanu yàlla. waaw di wax ni lañ ca war a def tamit di dinañ ko def moom xam na man xam na. incha allah ci kàttanu yàlla du nekkul loo xam dañuy toog si média bi di ko wax. dafa am loo xam ne sutura la waaw ndax euh, luñ ci def rek xeeb nañ ko nag ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yonent bi. Mm-hmm. combat boobu moom xam naa liñ ci gën a soxla sëriñ bi jàmm ci la bokk ndax combat bi démb signature contrat bi tàng na jër jër jër xaw ma ay mbiru jamaïcain moo mel noonu xaw ma làmb affiche yu muy tëgg moo mel noonu. combat yi de wax dëgg yàlla ak yonente bi tamit ñaan xanaa euh, président fédération Gambie bi bàyyi ñu bëree ko ci stade bu mag bi parce que combat bi xajul ci stade bu ndaw. Mhm. loolu moom parce que ay affiches yu mag lañ. parce que man damay dox sax ci mbedd bi sax des fois génn nii di doxantu gars yi di wax ci combat yi Leket France keneen ak euh, bébé Balla ak ñooñu ngay dégg wax ji muy bëri nga xam ne kon lii gone gi dafa visé ñi nga xam ne moom lañ gënoon soxla Gambie làmb yooyu la tëgg. waaw. Mhm. Mhm. ana ana ana ana waa Gambie fi mu toll nii sëñ bi daa mel ni li ngay nekk Gambie moo ëpp lool li ngay nekk Sénégal sëñ bi mbaa waa Gambie dañ laa bëgg nangu ci ñun. no xam nga waykat bi daana way nee na bul bëggati dëkk ba dem fa bu la dëkk ba bëggee demal. waaye réew mi daf maa bëgg moo tax ma ñëw fi ndax nit ki foo amee jàmm rek ngay dem foo amul jàmm tamit da nga fay génn rek dem wuti fa nga amee jàmm parce que bakkan jàmm la bëgg. Mm. Sénégal am naa fa jàmm mais fii jàmm. Mm. waaw ñun nag euh, xam nga kuy liggéey si mbirum rawaxaan ak mbirum jinne moom fu ñu la orienté rek ne la fa ngay dem rek fa ngay dem mhm. ndax kenn xamu xamuñu woon ni dinañ def Gàmbi sax def fi ay plus de trois mois yooyu wala leneen ak leneen waaw kon sant yàlla rek te boobu ba tey ñu ngi sant tamit. Mhm. mbër yi ciy bëre daa am ñoo ci ñaanal. non benn mbër rek laa fi musoon jàppale wax dëgg yàlla ak yeneen te amul defet te jàppale gi sax taxul dama ko ni dañ lay dina am sa soo demee làmb ji dina koo xam ne dangeen bokk sëriñ sëriñ bi da lay war mais làmb ji moom su diiree. doo am ndam si première cinq minutes yi nga mën a daan làmb ji dafa mujjee niil xaw ma Leget junior la xaw ma France junior daal xaw ma kan la ji daal. Mm-hmm. sangu ma ko nag dama ko seetal rek wax ko li ma ko sama benn yaay bu nekk fii moo ma boole woon ak moom. Mm-hmm. <laughs> te bi ma demee li ma leen wax la gis si làmb beneen sëriñam moo ngem beneen mbër bi mu doon dajal. Mm-hmm. Idi bu njëkk ku jot la. mais daa mel ni waa bitim réew yi ñu ngi yóbbante de nañ ma Idi dafay xam nga euh, euh, méthodes yi ñoo bokkul soo nekkee Sénégal li nga xaw a tuuti di nga mën a tal ñi nekk bitim réew mais fii every time yaa ngi busy yaa ngi nekk si liggéey bi client yaa ngi ñëw ku nekk a ngi ñëw waaw te tamit soxla nit ñi day bëri des fois tamit foog ñu comprendre ñu tamit jéggal ñu xam ni guddi gi laay ëpp jot pour mun a wax WhatsApp que bëccëg gi ndax bëccëg gi mënoo nekk si WhatsApp bi nekk si soxla client yi mënul nekk waaw soit moom da ngay bàyyi soxla client nekk si WhatsApp bi mm. Mhm. Mm. looloo tax. jam kaay jamekee kaay kaay toog nii ay jam jam tey ñu ànd ñëw ci ki nga xamante ni kilifa la mooy Idrissa Ndiaye nga xamante ni kenn du ko présenté seen diggante yéen ñaar ba nga sopp ko jël drapeau tuddee ko ko lan la waaw jili maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la jox sa wàccuwaay mm-hmm. di la ziar di ziar bas di nuyu baax jullit Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur di nuyu kilifa di nuyu kilifa aada yëpp di nuyu waa réew mi di nuyu bitim réew di nuyu président de la république bi bu bi muy Adama Barrow ak gouvernement am yëpp di nuyu opposition bi di dem ba Sénégal tamit kasaalika noonu di nuyu waa àdduna di nuyu waa Afrique comme ni mu ko ni mu ko waxee moom ndaw la mm-hmm. di wane boppam ci lu mu nekk ñun ñu nekk ay ndaw di wane bopp sunu bopp ci lu ñu nekk. yàlla boole ñu mu nekk koo xam ne moom doomu Afrique la laay wax. doomu àdduna la ndax dana senegal ne Gambie fépp fu ko soob ci Afrique mu ngi fay dem di dimbalanteeg jaami yàlla yi su yàlla defee mu ñëw fii ci Gambie di dimbalanteeg jaami yàlla yi fii ci réew mi nit ñu koy seedeel seede bu rafet ñu ñi nekk ci réew mi di fréquenter place yu bëri yoon la kat. ñun ci lu ñu nekk moom mu nekk ci doon ci king ñun tamit ñu nekk ci lu ñu nekk doon ci jàmbaar. Mm-hmm. ñu joxante loxo. Mm-hmm. ñu ñëw seet si ko sollicité ko ne ko tàgguwuñ la dañ lay yëgal. Mm-hmm. gis nañ lu rafet li ngay def ci réew mi duñ mën a jógee feneen ñëw ci réew mi war fi organiser événement boo xam ne àdduna yëpp dañ koy coow. te lu rafet li nga war def ci réew mi ñun dañuy jël sargal la ci loolu. amul dara lu ci teg. bu ngeen ñu ko waxutoon sax bu ngeen ñu yëgalutoon def ko sama ginnaaw man dinaa si dugal sama loxo te maa ngi ci biir waxuma la ak bi ngeen ma yëgalee. jox naa leen sama kàddu bés bi def naa ko sama bés te booba léegi tegguwul ci tànkam taxaw na ci démb li nga gis ci fële yëpp moom la. kon duñ def loolu di ko ñaanal rek yal na ko yàlla defal jàmm xewal sutura. Mm-hmm. waaw loolu lañ koy ñaanal ak ñu mu ànd ak yëpp. ndax xam nga ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. te nit ki uude nu mu la gisee rek la lay ëwalee. waaw mu ngi ci réew mi di fi def ay social di fi génnee ay sarax te man Sénégal ak Gambie képp ku ci def lu baax man ngay jàppale ndax ñaari réew yëpp samay réew lañ. am naa sañ-sañ taxawu ne Gambie ci laa bokk senegal si laa bokk. Hmm. sama yaay fii la dëkk sama pap fii la dëkk. kon ñaari réew yooyu képp ku ci def lu baax rek man. dama ciy fier rawatina ak moom mu nekk ak ñun même génération waaw. xam boo ko tuddee ko tuddee làmb Dakar euh, Gambie fas yéene nga ko tuddee làmb Sénégal. États-Unis sax fas naa ko fa tuddee làmb ndax moom ma ko ji. waaw xam nga ñun wax naa la. senegal lañ dooree ñëw Gambie. Mm-hmm. nañ ñu séntu feneen ak feneen làmb dañ ko bëgg a jëlee ci national def ko international. waaw te comme moom ni mu nekkee international ndax. tey du Sénégal ak Gambie rek de. Mhm. fépp fu mu dem ci àddina bu demee doon fa king ndax daf ko wane loolu lañ gis ci moom loolu lañu ñu wan te loolu lañ ko jàppee tamit mu nekk nit ku baax wax dëgg yàlla soo fi ñëwee rek xam ne kër ku baax nga fe nekk. Mhm. mu jox ñu cër boo xam ne tey bu ñu ñëwee ci kër gi amul heure waaw mu sax su fi àndeek moom da koy jàpp. Mhm. xam nga loolu dafa fort. waaw moo tax. ñu ngi koy ñaanal jàmm xewal sutura bi ñu ñëw ni tàgguñu ko. dañ ñëw mu dagg itteem yëpp. démb signataire bi waroon na ñëw waaye gis nga foofu nu mu mel su fa ñëwoon mu ëpp loxo. wallaay bi ma ñëwee laajte ñu ne mu ñëwagul. affaire deme demee noonu dama ne alhamdulilah. ndax li am démb moom wax dëgg yàlla. bi làmb di làmb ba léegi. lu mel noonu ñu ngi koy door a gis. si signature contrat rek. kon moom tamit wax dëgg yàlla mu ngi naan joxuñu waaye. li mu def ci bis bi fan chaque jour gars yi ñëw fi mu jox leen ñu dem bis. ma yaakaar ne nag Baram Bosek lak daawur ah. ak Meta Moroon xam nga xajuñ ci benn stade. waaw moo tax démb gis nga fële nu mer. Mm-hmm. waaw ñu ngi ciy kontaan nag di wax jox rendez ñëpp rek la 28. Mm-hmm. incha allah lambu Sénégal bi la. Mm-hmm. doomu Sénégal moo ko tëgg mbër yi ciy bëree ñii Sénégal lañ dëkk ñii Gambie lañ dëkk. ndax senegal mooy Gambie ñoom ñëpp ku ci nekk réew boo fa demee réew moo ci mënta dem. fa nga dëkk am nga fay mbokk. kon ñu ngi tàllal ñëpp loxo société yëpp képp ku ci yor loo xam ne produit boo bëgg mu jar la ñëwal jox ñu ko ñu jaay ko ndax làmb ji moo toll niveau boobu. Mm-hmm. di leen nuyu yàgg sa équipe yëpp di wax daal sëñ bi képp ku muy àndal ñu ngi kontaan si ñoom di wax ne waa Gàmbi nag njukkal gi leen sëñ bi labal nañ ko ko fay ci bés bi. Mm-hmm. ndax ku ñëw ci dëkk xaarul ci waa dëkk bi day jël li mu am di ci jàppalante. ak jaami yàlla yi di jël ay sarax di ko def. Mm-hmm. wax dëgg yàlla kooku dafa jot président dëkk bi reconnaître ko. Mm-hmm. xam ne saar yu mel nii la réew mi soxla. waaw mm-hmm. ah, moo tax bis boobu noonu ñun ñoo koy laasal appel képp kuy gambien gambien nga ñëw gunge ko ci bis bi xam ne kat dafa ñëw ci dëkk bi yàqu fi waaye dafay defar. su yàqoon dañ naan yàq ñun duñ jël sunu image di ko booleeg loo xam ne nii. dañ ci am yaraange wala yaddaange te moom tamit du ko def. Mhm. waaw su ko neexoon mu ne làmb du ma ko tuddee waaye xam na ne jeune na te sport suñ koy wax jeune ñoo tax ñu koy wax ñooy sport moom ñëpp xam ne yàlla xam ne mu nekk ku yëngatu ci sport. Mhm. ñu may seetaan gën ma ko gën a xam. yàlla ci sport la ko nattu ñaankat la waaye dafa bëgg sport. Mhm. xaritu sportif la am ay sportif lay jëflanteeg. dëgg la waaw. joueur en football ñëpp xam nañ ko ci xam ko ci làmb hmm. kooku nag suñu ñëwee ba ci biir làmb di ko fi delloo njukkal dañ ko delloo njukkal fi ñu ko war a delloowee benn kilifa dafa am lu ñuy wax père sama ma sàcc ko ci moom hmm. nee na golo waa ji da koy décorer hmm. jël benn kees def ci benn xat tëj kees gi ba mu rafet mu yóbbu golo fu amul garab jox ko décoration bi golo la nii ubbi kees gi gis xaj bi ci biir. mu xool gisul garab. su dajee décoration bi du baax ci moom amul fu mu yéeg. mu ne waa ji décoré bi ma décoré neex na ma lool waaye fi nga ma ko joxee. moo baaxul <laughs> delloo ko décoration bi moom nag loolu dalu ko ndax. fi ñu koy delloo njukkal fi lañ ko war a delloo njukkal. dëgg yomb na waaye prouver ci diggante ñaar réew dafa jafe. Mm-hmm. su ñëwee Gambie nag def fi lu leer bañ ko fiy delloo njëkkal loolu ndam la ci moom. Mm-hmm. waaw ku sañoon am loolu. Mm-hmm. am la ko yàlla jagleel ñu ngi ko siy ñaanal def ko nag ak fair play ci xol bu sedd guy. waaw wax dëgg yàlla. daf ñu bon teraanga ñu delloo ko teraanga teraanga teraanga moo koy fay. yàlla na ko yàlla defal jàmm sàmm ko sàmm. amiin di nuyu tamit équipe bi fi nekk di ànd ak moom di ko jàppale. waaw ku ci mel ni Bambis. Batra. sama doom day maa ngi koy jaar xam nga seex gaa yëpp maa ngi nuyu. wax dëgg yàlla affaire bi rafet na yaatu na. kon ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko wax nag le 28. ah moom su gaa yi yéexee. yéexee le 28. mbëri moo tax nee na leen. su ngeen xamoon li laxal si bés bi. ku ci yeboo say supporters dañu ñëw 10 heures. damay ragal na seen supporters yi yéex ñëw ci stade bi toog place su jàmbur dara di la matt ci suuf. te doo xam te doo xam nu mu demee nañ teel a ñëw rek jël place. ndax ñi ñu war a gis. Mhm. am na ñuy ñëw te duñ leen gis ñoo fa nar a ëpp jiili. Mhm. mais kuy ñëw nag. te mënuñu koo gis est que du yem ci kër gi rek. te bañ a ñëw xam nga ñun moom wax dëgg yàlla ak yonente bi suñu jug moom suñu jug dañuy jugaaleeg lépp. Mhm. loolu suñu borom moo ñu ko jagleel. suñ demee si bërëb sax suñ fa fekkanteeg nit sax bëti yëpp si ñun lay gën a lancé wu. Mm-hmm. kon loolu dañ koy sante yàlla di ko sante Serigne Fallou ak Serigne Mansour si. Mm-hmm. waaw ndax mun naa ne li ma am lépp Serigne Mansour si taalibe Serigne Fallou la. Mm-hmm. mais Serigne Mansour si moom a ñaanal. waaw moom a ñaanal Serigne Abdou Karim di doon sama sëriñ waaw dañuy ñaanaat tamit jàmm di nuyu la grand jaraaf di Cap Vert. moom laa waroon njëkk commencé muy jaraaf yu sundooy tey suñ amee sañ-sañ di gën a dem moom la. di nuyu sama nijaay Xaadim Mbay waaw mm-hmm. ah, di nuyu Cheikh Ali Ndiaye sama nijaay di nuyu sama famille famille Ndiaye gi nekk Kaolack yëpp. Mm-hmm. waaw di nuyu nag sama benn yaay bi nga xam ni moom laa am Gàmbi muy muy maman Lady mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ni drapeau bi dama koy jël sax delloowaat ko ko. ndeysaan waaw ah, damay damay jël drapeau bi. delloowaat ko ko ci kàttanu yàlla muy Lady Diegane. dama koy jël delloowaat ko drapeau bi. waaw xam ni bëgg mu jàpp si bis bi tamit jàppale tamit promoteur bi. ndax comme que doomam laa. foog mu jàppale ko di remercier tamit maire bi nga xam ne bi ñu nekkee Gambie ba tey mhm. moo ñu tibbal añ moo ñu defal lépp mhm. te Sénégal lañ fekkante woon di sama soxlaam yàlla def ni mu ngi maa ngi ñëw Gambie boobu ba tey Gambie bi mooy sama troisième fois damay ñëw def un mois ñibbi wala def quinze jours ñibbi mhm. ñëwaat tamit dañ koy remercier bu baax a baax remercier daal ñëpp di remercier sama entourage Babacar Mohamed euh, Ibrahima Momo l'international hmm? di ñaan si Sénégal jàmm di ñaan si Afrique jàmm nee naan la le 28 yàlla na yàlla def jàmm daal. Hmm. su yàlla defee jàmm de lañ ko bëgg a fekkee suñ ko fekkee ci kàttanu yàlla. ba mbas mi xaw a bàyyi senegal tuuti. ñu déplacé meeru ndëppkat yeeg meeru meeru ndaw rabin yëpp ñëw ci kàttanu yàlla <laughs> loolu mu ngi suñu xel nag te bëgg nañ ko def ci kàttanu yàlla indi cosaan si biir réew mi hmm. ñëpp gis ñu di nuyu tamit libaas hmm. moom tamit bi ma ñëwee Gàmbi ba tey moom ma taxawu moom ma jàppale lu ne mu ngi ciy dox waaw ku lim juum daal di nuyu borom kër gi nga xam ne moom lañ nekk si biir këram waaw yàlla suturaal ñu di nuyu le grand sama sama mbër bi nga xam ne moom laa bëgg a samp biir Gàmbi muy muy béggee nee bu buñ ko wooti bégee nañ ko woowee solution ah. waaw man maa ko tuddee solution première jour lañ ñu présenté premier jour mu def dara man kii mooy solution euh, euh, beneen bi tamit di wax ni lan moo tax ñëw ma si signature bi lu ko gën a yokk xamoon naa ni su ma ñëwee si signature bi tey mbër yëpp dinañ fees fii sama kër gi hmm. te loolu dama ko doon tamit non xam naa ne mbëri dinañ ñëw ne ma ñaanal ma te boobaa jeng day am looloo tax làqatu gi da ciy baax nañuy seen image bi nii rek ba bis ba ñu gis ñu. bis ba moom balaa combat bi di nga ma wax kan mooy daan ci ñoom ñaar ndax Idy <laughs> loo sa wax teg daaj sama bët. te ma kaa bàyyi ak sama sa grand le moom mu kii wax làmb ji lu waaw mooy loolu daal waaw incha allah ci kàttanu yàlla daal. lépp dina baax bu soobee yàlla yoon Jamaïcain moom maa ngi koy remercier bu baax a baax di remercier copain Paate su fi nekkulee Paate fii ñëw suñuy rey nag yi mu ñëw ànd ak ñun géej guddi gi su may génn mu ànd ak ñun comprendre loolu yëpp alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu wér a wér daal di remercier tout le staff de Jam Production maa ngi leen remercier di leen njukkal leen wax nag seek ngeen kaak gor ah di leen wax seek ngeen kaak gor di wax sama client yi tamit maa ngi leen di siyaar bu wér ñu nekk si diaspora bi ñu nekk fépp di nuy sama yaay yi nekk Angleterre Allemagne ak ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaar alhamdulilah